tey jii ñu ngi fooy wàllu deret tuur deret ci dëkk bi ku ne xam na ne dootu dara te mboolee bokki jullit ñi tuur deret màgg na ci yàlla màggaay goo xam ne keroog sang bi sallallahu alayhi wa wax na ci lu bari tere nañu ñuy tuurante ay deret alquran tere nañu ko wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bu leen rey bakken bu yàlla ormal lu dul ngeen rey ko ci dëkk te mooy ñu rey ñu rey yonent ba sallallahu alayhi wa wax ne kullul muslimi ala al muslimi haram damuhu wa maaluhu wa irdu léppi jullit bi araam na ci léppi euh, euh, jullit bi léppam araam na ci yow deretam araam na ci yow kazalika naka noonu alalam araam na ci yow lu dul lu ca teey mu may la kazalika deram araam na ci yow sanga bu tedd ba sallallahu alayhi wa wax nañu ne istani bu sabal mubiqaat na ngeen teet juróom-ñaari bàkkaar yi nga xam ne day alak nit mu nga waññaale ca faat ba kenn bu yàlla ormaal waññaale naka ca nee ne na moytu faat ba kenn ndax faat ba kenn ci teyeef ba kenn boo xam ne yàllaa ko ormaal loolu ci boppam bokk ci bàkkaar yi nga xam ne day alage moo tax mu ne akbarul kabair al shirku billah wa xuququl walidayn wa qatlu nafsi lati xarama allahu illa bil xaq nee ne bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yi nee ne bokk na ca li nga xam ne moo di bokkaale moo nekk ca boppam bokk na ca mooy sa ñaari waajur bokk na ca itam faat bakken bu yàlla orma te itam bakkenub jullit mbokki jullit bi faat ko yàlla suñu borom ba subhaanahu wa taala tofal na ca lu baree baree bare waxtu wi moo xat te yowmal qiyaam ak yaa nga ca awwalu maa yuqdaa bayna naas yowma alqiyaamati fi dima li yàlla di jëkk a leen nit ñi yowma alqiyaama mooy aju ci deret yi loolu maanaam ci suñuy diggante wa illaa bu dee si diggante jaam bi ak boroomam la muy jëkk a wax la muy jëkk laaj mooy julli ak lu ci aju kon nag lépp loo xam ne aju na ci wàllu deret nañu ko moytu ndax wàllu deret moom la yàlla di jëkk taxawal jaam yi di leen ca laaj te jëlante ak boobu nga xamee na sayyidina limaam sallallahu alayhi wa sallam wax na ko fii loola itam day am ca wàll woo kon wàllu deret war nañu ko xool te nit ñi ñu ngi fowe wàll woowu bu baax a baax a baax sanga bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa yazaalu almuminu fi fushatin min diini maa lam yusib daman xaraama nee ni jullit bi du dañ di am ak yaatal ci diineem fileeg tuurul deret ju yàlla araamal na moytu loolu al imam ibnu arabi al maliki wax na ne alfusxatu fi diin saatu l amali saaliha hatta ida jaa al qatl baaqat li annahu laa yafi bi usri nee ne ak yaatal ci diine moo di ne yaatug jëf yu baax ya waaye nee ne say jëf lu mu baax baax bés bu bàkkaarab rey duggee ci say jëf nee ne sa lépp a xatl nee ne euh, saatu fi zunub huwa qabul al gufraan wa tawba hatta ida jaa al qatl irtafa al qubul nee ne ak jàppandal ci ay bàkkaar mooy yàlla ubbil la bunti tuub nga mën caa tuub waaye bu ak rey ñëwee nag ah bunti tuub commencé naa xat ci yow yàlla mën na laa nangul tuub waaye nag ah ëllëg say yiw moo ko mate ba léegi nag nu ngi foye bakkini doomu aadama yi ñaari fan ñett yu nekk nga dégg ñu ne faat nañu bakken te du mujj fenn ndax atte yàlla dafa laxatu te itam nu ngi dégmal ca kanam bés yoo xam ne am na nit ñoo xamee ne ñu ngi wax ci wàll woo xam ne day yee fitna ñuy moytuloo sunu bopp di moytuloo jullit ñi wàllu ngànnaay ak violence ndax loolu mën naa jur lu màgg lu ne ki ñu sisir ci sama ci sama xeet mooy ki nga xam ne day ñëw indi julli yu bari indi koor yu bari maanaam jaamu yàlla gu bari ak asaka yu bari waaye ñëw na xas na kii euh, tuumaal na kii yàq na derab kii dóor na kii tuur na dereti kii bu ñu demee ñuy jël ci yiw kii di ko tegal di jël ci yiwu kii di ko tegal di jëw si yoom di ko tegal kii di jël si yoom di ko tegal kii ah ba nga xamee ne yiw wa na njëkk bu fekkee ne euh, ak xëy des na ñu la seen i bàkkaar teg ka mu dal di dugg sawar loolu musiba la kon nag nañu moytu li nga xamee ne mooy violence boobu nañu ko moytu ndax jëlante àq ba deret lu rëy la ci biir Euh, euh, a amal muy balaasu jëf yi nga xamee ne moom la ñuy tegal jaam bi ëllëg sama borom ba wax na ne wa man yaqtul muminan mutaamida fa jazaauhu jahannam xaalidan fiha wa xadiba allahu alayhi wa laanahu wa aaddalu adaban azima képp ku rey ak jullit te tey ka nee ne jahannama ndéem da lay fay dina la fay jahannam te di nga fa sax béel fa itam maanaam yàgg fa lool ndéem ab jullit la nee ne yàlla mere na yàlla la waajale na la mbugal mu màgg màgg màgg màgg kon nag loolu jar naa ragal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne iza altaqa almuslimaani bi fa sayfihi fayhima walqaatilu walmaqtulu fi nnaar qaalu ya rasulallah haza alqaatil fa ma baalu almaqtul qaala innahu kaana harisan ala qatli saahibi nee na ñaari jullit bu ñu dajee ku ne yor ngànnaay uti sa moroom bëgg koo rey ñoom ñaar ñëpp sawara la ñu jëm ñun ko ya rasulullahi xam nañu ki rey mu ko dugge sawara loolu xam nañ ko waaye ki ñu rey lu mu ci dugge sawara mu ne ndax dafa xiroon ci rey mbokkam jullitam kon nag nañu nañu jël leçon yooyu dafa xiroon ci rey mbokkam jullitam mu dal di waxaat ne wallati nafsi bi yadi laa tazhabu dunia hatta yatiya ala nnaasi yawmun laa yadri alqaatil fi ma qatal wala almaqtul fi ma qutil qiila ya rasul allahi kayfa yakunu dalik qaala alharju alqaatilu walmaqtulu fi nnaar nee na bés a ngi si bés yi di addina du jeex mukk feek demu leen ba gis nit rey nit te xamul ci lan rey lan la ka rey gis nañu ko rey ci ay ñaar téeméer rek kenn xamul lan moo la tax rey kenn xamul yow mënoo cee wax dara lu tax nga rey kenn mënoo cee wax dara kazalika nag ki ñu rey moom itam du xam ci lan lañ ko rey léegi nag foofu la ñu toll mu ne ñu nekk loolu mooy lan mu ne alxad xar ji langue xabasa la maanaam éthiopie bu ko dugg ci biir arab moo di rey gu mu ne waaye bu boobaa ka rey ak kañu rey sawara lañu ko te ëllëg yowm alqiyaama yajiu lmaqtul mutaalliqan bilqaatil tasxubu awdaajuhu daman yaqulu ya rabbi salli haza fi ma qatalani ëllëg ki ñu reyoon nee ni dina téye ci ko ko rey téye ko ci loxol ndeyjooram téye ci boppam ci loxol càmmoñ nee ne baat ba sidditi baat ba mu ngay sotteeku deret mu dem ba ca kanam borom ba nekk yaa rabbi yow sama borom laajal ma kii si lan la ma lu tax mu rey kon ah, rey bu ko kenn tax yonent bi baare yoon woowu mu dal wax ne tere ñu sax ñu yor ngànnaay mu dal wax ne laa yusiiru ahadukum ila axihi bisila mu ne fa innahu laa yadri la alla fi yadihi la alla sheytaana fi yadihi fa yaqaw fii xufratin min annaar mu ne bëggumaa gis araam na ci yéen kenn ci yéen jël ngànnaay di ko joxoñ moroom di wax di ko ko joxoñ ñu yor fital nag dañuy naagu léeg-léeg dal di génn fital bi di di jëkk jëme ci wala paaka wala lu mu doonoon yonent bi ne loolu araam mu ne amaana ba seytaane day sànni ci sa loxo mbir ma rëcca dal di doo xam sax lu tax nga tiire te naroo woon a tiire da nga ko doon xëbal mu ne loolu seytaane ka def ca beneen riwaaya ba yan zaxu maanaam seytaane dina la taarala loolu ba nga dugg ci rek mu dal di wax ne ah, man ashaara ila axihi bi xadiida man ashaara ila axihi bi xadiida laanatul malaayika xatta yadam walaw kaana axaahu li abihi wa ummi nee képp koo xam ne jël nga ngànnaay jëme ko ci sa mbokk nee na malaaka yaa ngi lay rëbb peeg tegoo ngànnaay loolu donte ki nga jëm ci moom yéen a bokk ndey baay di doon kaf nee na malaaka yaa ngi lay rëbb feeg tegoo loolu kon nañu moytu wàllu violence fu ñu jëm nag ñu ngi ko fa jëm mbooloo mu mu mën a doon na moo xam te politique la moo xam làmba la moo xam lu mën a doon gis nga ñu baree bari buñ fay dañ yoraale seen gànnaaw kon kooka moo ko tey dafa bëgg xeex bu ñàkkee ñun bu ñu bokk ci loolu mooy mooy mooy li mu wax léegi kon moom tëj na bunte boobu tëj na ko kon ñun waruñ saa bokk dem na ba sax nee ne bu kenn bocc jaasi wala paaka ci kanamu nit ñi lu dul ne daf ko dugal ci mbaram ba noppi di ko doore mën a jox xalaat ku def loolu nag nee na ñu ngi lay kon bokki jullit li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam araamal na sunuy deret jële ko suñu borom bi sunu subhaanahu wa taala ci suñu diggante moo tax ba muy wax ci bésab arafa nee na laa tarjumu baadi kuffaaran yadribu baadakum riqaaba baad bu leen ëlbatiku sama ginnaaw bu ngeen fi jógee di def ci fi yéefar lenn ci yéen di dóor baatam ña sa des maanaam di reyante maanaam gën di reyante yéen ci seen biir ndax kat bu boobaa alqaatil wal maqtuul fi nnaar kon nag li may mujje nee na sallallahu alayhi wa sallam man istataa minkum nee na awalu maa yumkinu min al insaani batnu fa man istataa minkum an laa yakula illa tayiban fal yaxamkum wa man istataa an laa yaquula baynahu wa bayna aljanna milu kaffin min dam ahraaqahu fal yaxam nee na li ma leen di dénk li ma leen di dénk mooy lii jëkk nëpp di yàqu ci doomu aadama mooy biiram ndeysaan xool bi mu ñëwee fii laa taakulu illaa tayiban mu ne képp koo xam ne mën ngaa góorgóorlu ba doo lekk lu dul lu teey na nga def leer na nañu lekk lu teey ndax ne biir mooy jëkk nëpp ci doomu aadama mooy jëkk yàqu mu ne itam li ma leen bi mujj dénk mooy képp kenn ci yéen bu ma nee moytu deret lu ca feese sam tënk lii rek ci deret joo xam ne da nga koy tuur ëllëg mu mën a dox sa diggante dugg àjjana na ko moytu nee na lu toll ni sa tënk lii boo ko tuuree si deritu jullit bi ëllëg mooy dox sa digganteeg nga mën a dugg àjjana ci beneen riwaaya saa yu jéemee pour dugg àjjana rek deret jooju dal di koy baare mu ne nag képp koo xam ne man ngaa moytu deret ju araam lu ca feey sa sa lii yawmal xiyaam mu mën a dox sa diggante ak àjjana na nga ko moytu yàlla nañu yàlla sama borom ba musal ci seytaane te ñu tuub jëm ci sunu borom subhaanahu wa taala te xam ne rey bokkul ci melokaani jullit ba muy wax ci ibaadu rahman allazina yamsuuna ala al ardi hawnan wax na ca biir wallazina laa yaqtuluuna nafsa allati harrama allahu illa bilhaqi wala yasmin ba fa wax ja jeexe waaye nag ku tuub muy dëgg ci yow yàlla mën na laa nangul tuub waaye nag ku tuubul yow bokk nga ci way tooñ yi suñu borom ba subhaanahu wa taala mi nga xamee ne moo ñu defaral suuf defaral ñu suñu réew mi jàmm am fi moom la ñuy ñaan mu defal ñu fi jàmm képp koo xam ne yaa ngi fi wax ay kàddu yoo xamee ne day indi ñàkk jàmm ci réew mi yàlla subhaanahu wa taala insha allahu dina la kafay fii fay ka fii fay la ko ëllëg ndax moom sallallahu alayhi wa wax na ne man aana ala qatli muslimin bi shatri kalima laqiya allaha maktuban bayna aynayhi ayisun min rahmatillah nee na képp koo xam ne xir dimmali nga dimmali nga nit ba mu rey ab jullit donte ci genn wàllu kàddu mu jëli ci sa kàddu googu lu ko encouragé mu rey ab jullit nee na kooku di nga dem ca yàlla ñu bind sa sa sa sa jëb yi nee na kii naagu na ci yërmande yàlla maanaam tey yàlla du ko yërëm moo tax nañu xam lañuy wax fitna bu ñëwee dañuy téye suñuy làmmiñ la yoneen ba waxoon moom nee na am sik alayka lisaana ma sa làmmiñ bi waaw waaw téyel sa làmmiñ bi mu nekk ñun li ñuy wax dañu koy jàppe mu nekk ah yow de seen ay ñàkk xanaa xamoo ne lii lii mërmeel nit ñi sa seen xar kanam yi sa biir sawar mu ngi jóg seen boobi ci làmmiñ yi kon bul wax wax boo xam ne nit mën na saa sukkandiku bari nit looloo tax nit taxaw naa nangam bu amul dinañu taal réew mi kooku mu ngi fitnaal boppam waaye mu ngi ubbi but ni fitna yaakaar naa ne ku wax loolu boo moytuwul yow yaay takk waaye réew mi incha allahu du tàkk yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla sama ba defal jàmm ci suñu réew mi yàlla na yàlla sama borom ba nangul na suñuy jaamu mu ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp yàlla na yàlla sama borom ba tabaraka wa taala xiir ñu si boppam rey ñu si tawxiid dekkal ñu si tawxiid yàlla na sama borom ba naatal suñu réew ak réewi jullit ñëpp yàlla na yàlla sama borom ba tabaraka wa taala bàyyi ñu fi suñu xalifa bi may ko wér ak jàmm ak xéwal ak xalifa yi islam bi yëpp yàlla na yàlla sama borom ba nangul na suñu jaamu wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil